sa avenue exclusive mun naa am yow nga ko soo ko seetaan xamuloo fu mu dooree te nag ñu indi la ñu ne la nettali si làmmiñu borom nuyu naa la. fay naa la Babou nuyu naa la yow di nga fàtte nit ñi sa tur ak sa sant ak yaay kan. waaw nuyu fans am na jàmm yi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi follow Gambian Talents TV Fatou Samba la bu Gambian Talents TV ñu nekk si rek. su ne ñu ne Semester Avenue Fatou loo ñu mën a wax Semester Avenue depuis ñaata at ak fan la dooree. Babou su ne Fatou sax du ne Semester Avenue su faatu Fatou dañoo ne Gambian Talents TV Gambian Talents TV dafa indi Fatou to another visibility to another um, you know to another dimension. dafa indi Fatou mu gën a mun a wane boppam yeah Fatou yàgg na lool lool lool lool when it comes to media but Semester Avenue more especially dafa wane the other part of Fatou because Semester Avenue mooy show boo xam ne different people ngay fekk fi different nit ngay fekk fi ñi jógee Amérique ñi jógee Angleterre ñi jógee Europe ñi jógee you know other parts of Africa ñëpp ñëw Asia foo xalaat ñëpp ñëw ku nekk ak sa jikko booba ñëpp lañ ñëw jël dugalante mun a dafa gaay. lan moo indi turi Semester Avenue. Today's semester avenue by the way mu ngi jógee from borom Gambian Talents TV di Pa Ousmane Diouf moom moo indi the name semester avenue you know mu ne dafa bëgg a tur mu tudda semester avenue and then ñu nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak moom ñu dibéet si waxtaan si ne ko non semester avenue naka nga tuddee show semester avenue xanaa semester yi rek a faa jaar mu ne déedéet but semester yi nga naa welcome so loolu moo indi tuddi semester avenue depuis 2018 2018 ba léegi yéen a si semester avenue. yeah depuis 2018 ba léegi ñu ngi si semester avenue every day ñu indi lu ees every day ñu def lu ees every day ñu ñëw ak different people uh, wane different people indi different semesters indi tamit also ñi nga xam ne tam nekkuñ semesters uh, non semesters tamit ñu indi leen ñi nga xam ne ñoo leen a welcome indi ko xalaat rek jaar na si semester avenue bi. depuis 2018 nekk na nekk lu ndaw surtout comme noo ko waxee am soo ah, ñan ñoo jàpp si si combat bi depuis 2018 ba 2023. Eh, Semester Avenue wax dëgg ne yàlla ñi nga xam ne ñooy viewers si ñooy ñoo si jàpp Semester Avenue ba léegi amagut sponsor. unfortunately eh, and it's true ne Semester Avenue nekk na show boo xam ne Uh, it's one of the most watched programs yoo xam ne not only on Gambian Talents but all over um, you know media especially lu online especially boo it's based in Gambia because ñi ti dañ Semester Avenue uh, Babu I can tell you am in videos yoo xam i am not, I millions of views you know Semester Avenue tey damaa ne Gambian Talents Ega. yàlla ak Semester Avenue so but ba léegi amuñ sponsor but ñi nga xam ne ñoo koy seetaan baabu ñu goree ngi nii ñu baax a ngi nii baabu am na ñoo xam ne xamuñ leen from Adam ak Awa but because of seetaan birek rek baabu dañoo gis kuy ñëw ñu ne la ne demee si airport bi joxal ma timi tiimi Semester Avenue oo defalal ma lii oo ñeneen ñu dugga on Gambian Talents page dama bugg am nomba diw sangam dama bugg a wax ak moom ba loolu moo dee tax tey mu nekk mbooka loolu am na solo bu baax waaye liggéey boo gis dafa am jafe-jafe ah yan jafe-jafe ngeen di dund soo ñëwee si Semester Avenue. waaw Semester Avenue ñëw fi baabu yombut I remember benn time la ñëw nañ Semester Avenue fii laa toog rek ma am koo xam ne fa ñëw rek ñaf ma mbécc. mbéj bu mbéj bu cher ñu ngi woon live and direct on si suñ page bi because Pa Ousmane la xëy time boobu Pa Ousmane mu ngi daan def benn programme mu nekk uh, lu tax Gambia du dem so mu ne Pa Ousmane yu mu daan wax about Gambia moom du mun a accept loolu because moom dafa nekk koo xam ne dafa believe ne président bi is doing right so yi nga xam ne ñoom Pa Ousmane ñu ngi koo wax uh, te it ñu ngi ko mention moom laay gudd loolu and there is no perfect government ku mun a nekk président there will be obstacles here and there so Semester Avenue mu nekk si noonu ñu nekk di try di try but unfortunately that particular party mënut a gis try Semester Avenue uh, and also ne Pa Ousmane moo dee def loolu lu tax Gambia du dem gis Fatou rek ma ñëw airport rek tiim ko mic rek mu ne ma tar ma ne tar for what I don't understand dama foog ne dama saaga o dama wax loo xam ne xam because kadu mom balla mun na mo gina te do ko xam o nga something and the next minute realize lo ne da nga wax lol te man tam nit la just like any other no more mistake or no more wahe and then you know mina dedet parce que dama de setan pa ousman pa ousman lum de lu ta gambe do da and ma jirate suma mbet ray ko nice duga ci suma moto dem ñibi bat babu ma dem kër he ma futandeku ne len ki suma ko japon ha huh? xam nga rek waaye xam nga rek yaa ngi understand soo liggéey rek you have to be professional but it's rather unfortunate. yow jamono boobu yow laaj nga ko lu tax mu mbéj comme noo ko waxee moom Pa Ousman Joof la am affaire noo du woon yow na jamono yow laajoon nga ko lu waral mbéj bi. non non non non to be honest la teewu ma ko anything uh, bàyyi naa ko man ma dem def suma soxla continuer and after I think a day or so. mu dem di ma laajte lijanti ma si suñ office nekkuma woon sa office because maa ngi demoon si other programme and mu ñëw suñ office laajte suma nomba laajte suma tour and dem tam si suñ kër gars won wan ko fan laa dëkk and everything mi ne dafa ñëw ko apologize because lu mu def dafa wrong everybody ku nekk mu ngi ko ko wax and tey kooku bokk na suma very good and close friends and comme nu ma ko dee waxee rek sometimes uh, online bi jaxase bi daf dee bari da nga gis baabu buy seetaan nekk sa boor la yow ba Gambian talent or this particular media house Oli oli lii le lele su ko fee kooku jur la yu bari ci sa bir bop ba nga xamne yow da nga start di hit that particular individual fek hamuloko. ko ñu ne ma nit soko wax gisee te xamuloko hey rek nga ko so that is the case and you know I believe in my work man namuma dara soxluma dara tamit lu dul suma liggey just to satisfy suma customers and customer Semester Avenue ñota fatu neka fumuna fu mu na nek ñota fumuna mu na ega fu mu na ega fatu bi 2018 bi 2020 nekkul at bu ndaw lan moo la gën a marqué noo gis am na lu bu ne am na lan moo la gën a naxari si Semester Avenue su dee benn fan la sax nga ji saa yoo ko xalaatee rek daf la lay métti mooy lan. Semester Avenue lu ma gën a métti moo nekk dugga si biir I wish ñu mënoon a dugga si biir not fu gars di liggéeyee but at least uh, uh, you know. entrance bi rek ñu mënoon a jël foofu noonu su ko defee ñiy ñëw o ñuy duga before noonu lañ ko daan defee but unfortunately dañu mus a boole you know uh, you know security bi ñëw fii ñëw oosi ñu you know waru leen a duga even airport bi within this visibility sax gars yi nanguwutoon ku ñu defoon loolu so one like man and Pa Ousman moo ñu daan wane uh, sa liggéey danga koo mun because airport bi is a Uh, open space te kenn moomut ko foofu ku ngeen dem liggéey la su dee dañ leen aaye si biir no problem bu leen dugal si biir but outside nobody stops you so even if they stops you yéen ngeen war a def seen liggéey and then ñu am that push and pull and every other day ñu ñëw ba you know luckily PRO bi Uh, became my friend, a very good friend. So dama dee ñëw si airport bi right now without no calling or whatsoever because at the end of the day ñu ne suñu gars yi daa xëy dañoo taxaw ñu wane loolu def ko video def ko live dugal ko si page bi and later ñoom it ñu change seen mbir ba nga xam ne uh, boo si airport ñoom ñëpp dañ dee lomba fekk ñu fii and ñu wéefante ñun wax ak ñun. Fatou ah, liggéey si media yombut te nga nekk njiit ah, jamono la ngaa woon ndaw ñi soññee bi when si social media. social media nga just am sa life life outside work liggéey dafa utee ak um, you know sa personality or sa personal life sa personal life dafa also utee ak liggéey liggéey da ngaa dem ba jeex man suma pa moo ma wax something moo ma respect ko lool muy Badou Samba always daf ma dee ya when you are at work work and when you are outside work don't talk about work unless mu nekk emergency and man I believe so much in that and um, dama dem through so many people yoo xam ne dañ ma guide anti Aisha Davis and suma yaay kooku tam daf ma wanal li nga xam ne mooy liggéey so man dama dee wan ndaw yi ne soo amee liggéey fonka ko soo ko fonkee kenn du la yab baaba su nit gisee yabaata si sa kanam yow yaa ko wan but sa kanam always defal liggéey soo defee liggéey di nga dem ba jeex faatu Fatou comme noo ko waxee depuis 2018 yàgg na kan ak kan ñoo jaar ci semestre bi wala yooyu depuis 2018 yow rek yaa ko ba léegi wala am na ñoo xam ne jaar nañ fi ñoo xam ne ndaw ñoom sa loxo leen jaar. non non non non non Babou euh, Gambian Talents moo nekk institution boo xam ne euh, it's not surrounded by one person because Fatou mun na moo toog tey mu dee oo Fatou mun na moo toog mu tukki oo Fatou mu am issues oo Fatou mu bàyyi so da nga gis ne kenn nit du amee dara kenn nit su amee dara mooy waral at the end of the day place bi mu dee oo nit su gisatu tey borom da nga gis euh, ñeneen ñi duñ mun a xam kooku lan la góor turu su ko defee ñu mun koo def Fatou nekkul moom kenn jaar naa si ak Aida jaar naa si Moussa jaar naa si ak Maymuna jaar Sadio moo especially jaar naa si tamit ak Aysatu Koli jaar naa si ak euh, naka la naka la jànga ba tudda wati sax Bintu Sinaate you know jaar naa si ak a lot of people jaar naa si tamit ak Mariama si Saawo you know euh, jaar naa si ak ñoom ay aji Bintu Ndaw you know Semester Avenue dafa jaar ak nit yu bare bare bare bare Gambian Talents su kii génne ma indi keena dama dee jàngal keena ba na kooku mu understand mun ko nga gis let's say for instance ma tukki kooku moom mooy um, come up so Semester Avenue def nañ si lu bari and Semester Avenue not only Banjul International Airport lañ si defee Semester Avenue I remember defee ko China man suma boppa ma tukki uh, dem China ñu defee ko foofu I remember ñu dem Praia ma def Semester Avenue foofu I remember tamit uh, ñu dem uh, Belgium ñu def tamit Semester Avenue foofu I remember ñu dem lot of dëkk even Sénégal tam dem neen Semester Avenue foofu noonu dem neen um, bu yàggu rek recently uh, Kafountine waa dem neen Kafountine recently ñu def foofu Semester Avenue so Semester Avenue man dama believe in exploring gis nga nit uh, soo explore te uh, o nga explore you know doo doo doo doo xam lan nga mun so anywhere fu ma dem rek dama di def Semester Avenue and I create my own scene with or without semester buy ñëw danaa um, interview ñi nga xam ne ñoo nekk foofu and feature loolu on semester avenue so definitely semester avenue ñu bari jaar nañ si and then also through semester avenue jot nañu exposure bu bari faatu waaye si biir semestre avenue beneen tuut juddu na fa di semestre avenue hang out boobu tuuboo tam lu ko indi waaye semestre avenue hang out ndeysaan baabu boobu noonu tam am na parce que da ngay gis yenn semestre si airport bi euh, interview leen ay benn two minutes la tri bi que semestre bi mu ngi soona o semestre bi mu ngi ñibbi mu ngi yaakamti so Pa Ousmane mu ne euh, Fatou why not ngeen create semestre avenue hang out am na yenn celebrities yoo xam ne ñu ngi ñëw holiday doo mun a wax ak gars si airport lu bari ba di nga leen mun a fekk si seen kër and through Semester Avenue Hangouts leen leen dee len am ak gaay benn one hour or benn one hour thirty minutes or benn thirty minutes waxtaan ak gaay si seen jaar jaar lan ak lan la ñoo def I remember ku mel ni Baba Jah jaar na si ku mel ni Fatou faatu um, naka la uh, I remember Zeynab Zeynab Moussa Dabo tamit jaar na si uh, remember naa tamit uh, kii nii jaar na si Euh, ku mel ni euh, celebrities yu bëree bëree bëri jaar nañ si ku mel ni Youssou Ndour sax jaar na si Semester Avenue hang Semester Avenue hang out other other other people many many people jaar nañ si wax dëgg neex yàlla I even remember Baba balaa kii di gaañu oncle Laye Ngom balaa muy gaañu I think one week before mu gaañu si airport bi fii leen tasee moom waxtaan ak moom I remember Jaliba Kuyate tamit jaar na si Semester Avenue I remember Awa Gambia tamit jaar na si Semester Avenue you know many many many people jaar tout semestre avenue sooy sooy sooy lim sa da ngaa jum ñoom musu baakatoo saawoo mi nga xam ne moo nekkoon tiara si seen boos jaar na si you know so many so many people ministers yu baree baree bari jaar nañ through semester avenue you know every other time bu nekk suñ ñëwee foog ñu gis somebody and ñeneen yi la laa accept ñeneen yi la accept ñeneen yi dafa am ne sax dafa am looy xeeñ o loo tilim o whatsoever moo tax sometime balaa ma dee ñëw semester avenue ma ne xaw ma tey ban mooy xewaat Ah, faatu nga nekka ndaanaan te ku nekka ndaanaan il nga wax moom Fatou fa nga gisande pa au ba nga ba nga doon ba nga nekk si pa nekkuma ndaanaan baabu to be honest ah, suma suma suma suma liggéey rek moo ma yóbbu ah, fu ma bugg a dem te dama ko dee wax rek I am still starting defa bu ma dara an muna bu ma dara te incha allahu rabbi su si yàlla àndee ak euh, si jàppale suma team I believe dinañ gën a dem si kanam a kanam kanam and I believe young people yi nga xam ne ñu ngi ñëw comme yi dama day gis ñu wax ne Gambian Talents télé xale yi la and I say no to that Gambian Talents nekkul télé yi la Gambian Talents télé la Gambian tey dafa utee any platform Gambian Talents ngay gis koo xam ne xamul dara musuta téye mike ñu ñëw ñu jox ko mike ñu ne ko jàngal nga gis koo xam ne mu nekk si université bi am degree sax wallahi azim xamut ni ñoo onee computer nga gis nit mu jeexal si university bi xamut ne te mu ne moom journaliste la xamut naka la ñoo téyee mic ku wax oo ku on ko so Gambian tele moo la dee jot that publicity moo la dee jot that you know uh, practical experience ku nga mun ne woné sa boppa an xale mooy maaga babu koo fi gis tey mu toog ne moom mag la oo kilifa la dafa staté ndaw dafa starté ndaw su du doon yaa wallahi azim du mun a dem so with Gambian talents we in no competition just nu ko dee waxee rek ñun ñu ngi def suñ part and tey télé yu bëree bëri from QTV la Adam mu ngi foofu noonu ñu ngi am Euh, naka la euh, Aïssatou Touré mu ngi GRTS ñu ngi am suñ yeneen euh, naka la journaliste yoo xam ne ñu ngi si yeneen plateformes Eye Africa sun Mohamed Mbaye Garmi mu ngi fa other people ñu ngi si yeneen plateformes ay Kër Fatou Fatou Network and other platforms so we believe ne ñun ñëpp a war a jàppalante when it comes to media ku ñu mun a dem and Gambian talents ñu bari ñu ngi jóge si back way bi ku mel ni Cheikh Fall mu ngi jóge si back way bi with zero experience kenn parewut ko empower ko kenn joxu ko that eh, employment but through Gambian talent foofu la amee liggéey foofu la mun a defee lu bari macha allah. Ah, Fatou naka nga gisante Pa Ouce ak fan nga xamante Pa ba tey nga nekka madame Diouf loo ñu si mun a wax. ah Babou to be honest eh, man um, you know. suma life it's my life and work it's work and work moom macha allah mu ngi mu ngi jural lu bari and incha allah nen ñaan yàlla rek ah, benn toog ba Adama Barrow tamit mu gis ma xam li maa def comme jabaram ni mu ko gisee thank you. waaw non ba nga tënki nga ñu wasi nga wasi fan nga gisante Paa Ouz si. semence ab déedéet na na le fan nga gisante Paa Ouz Semester Avenue, everybody watch it, and it's from Gambian Talents TV, one of the best online television. Bohamne, it has almost about 500,000 people. You see it on only Susun Facebook channel, and everything them number 17 million viewers. And right now, among all online platforms or even national TV, like again TV, soon uh, YouTube channel, more all of them, or 99% uh, si guy and so demee si suñ Facebook page bi I am sitting on camera and I'm showing this or I'm saying this and to be honest I am proud of my team and we are doing great 2024 mu ngi ñëw Gambia Talents TV lala la pare askanam rawata ñu ko seetal ñu am ne ñoo gis gisu benn lu 2024 la ngeen am dama koy wax rek janax day bari pax muus day mën a wax ngeew at bu nekk ak bosam and inchallahu rabbi uh, with the guidance of uh, gambiansi ak ñi nga xam ne ñoo ñooy na gay keep believing on us and inchallah dinañ leen indil more surprises man dama believe ne every time ak bu ees te ñu ngi si online o ñu ngi si media so waxee rek keneen cappa ko rek jël ko mu naaw soo bàyyi rek ñu def ko noonu seetaankat yi nañ follow rek su ko defee ñu gis lu ñoo semester avenue la nga gën ca gaay semestre avenue lay lay la semester bu ñëw rek na nga pare parce que xamna ne naal maa fi nar a xaar président bi la bëgg mu roma nak su ko défé mo mën ko interview wa fat bala mala la sa saa su nekk da ngay ñëw Fatou semestre avenue mu nga ñëw kana kan ñolale solal so ñëwee si semestre avenue na bu tee wa dëgg yalla babu suma family is everything honestly bala other people in start di ñëw suma family more especially suma ex sister tamako bay, suma ex la ko de ooye oh wow, suma suma suma favorite mak, jatu si soxo ban na uh, madame si soxo uh, kooku mooy man suma favorite mak man moo ma dee always you know dafa yone yére ay ñaata yées yëpp inil ma bugut ma dara and the same thing uh, you know Euh, suma yaay euh, anti doli anti doli Sambu euh, dafa yónnee ay yére yëre yére yëre indi mu ngi Angleterre the same thing applies to Amina Mbaye Sarr suma maam suma wujja you know jigéen juma ma bugga jigéen joo xam ne lu nekk lay def you know um, suma family moom suma waree lim rek damaa juum rabatina nag suma beneen sista bu baax a baax a baax a baax Anna Camara Anna kamara madam Jaata ku ma suma mees suma top bagage ana bugut a dégg ma wax dara and képp koo xam ne yaa ngi bugg a transfer anything or yónnee anything through GP call leen ana Camara Jomma Camara Fatoumata Jomma su ma ko mentionné rek damaa toog rek ma xum kooku even outside Semester Avenue mooy solal faatu julli bu nekk moo maa solal and even outside julli ñu iya tamit daf see jaar so Babou su ma waree toog ma ne maa ngi lim honestly speaking I believe so many people dinañ ma mere ak suma special yaay anti Fatou Diouf ñu ooyee ko Ngoon Diouf euh, jigéen ju ma bugga suma magi yaay jigéen joo xam ne you daf maa yónnee bagage bi ma ne ko it's enough to be honest to be honest and wax dëgg ne yàlla another person boo xam ne I don't want to mention because moom du dee bëgga ñu mention turam on social media but honestly so many people do support Fatou and ñawkat boo xam ne nekkatu fi moo paak nekkatu fi waaye mu paak tamit daf may support so much dama ko dee wax it's enough so baabu su ma waree mention du baa aji yaamu aji's beauty parlor tam daf ma daan uh, make lu bëree bëree bëri di ko wax thank you so much moom uh, beneen gora gi noonu suma entire family suma entire family and also to suma family um, jëkkër tamit wax dëgg neex yàlla they so good and duma mention names but di leen wax thank you very much ak la ngaa tàggatoo ak kanaka nga nuyu wala yëpp ñu dem. wax dëgg neex yàlla I say thank you very much to everybody su ma mentionné tur rek damaa ñëw faate waaye di wax jërëjëf baabu through Semester Avenue for the first time a gis ñit mu jooyal uh, naka la ñit ma fekkee ko ñit uh, di romba rek di jooy ma foogoon ne. comme euh, naka la keneen la moo jooyal ndeke borom man la moo jooyal and I could not help it dama am ku daw away and then toog am benn xale bu ndaw boo xam ne moom it mu ngi euh, I think um, Sweden xale bi tamit daf ma bugga ba bugga dee mi ne ma yow yaa indi problème suñ kër mi ne suma papa daf la bugga ba bugga dee suma yaay du dee mën a téye loolu so yow yaa dee indi xuloo si suñ kër because suma yaay suma papa daf la bugga ba nga xam ne suy seetaan sax daf de stop everything just ku seetaan la you know eh, am na beneen jigéen boo xam ne tamit mu ngi America moom it gis ma rek you di jooy moom ak jëkkëram tiimati yu dëgër so Semester Avenue wax dëgg neex yàlla I am I am trying and I will keep trying and I will keep it keep it keep it su neexee yàlla na gaa yi am um, yokk a rek faatu moom ku nu koy waxee I'm in no competition with nobody. I am here for my job and I will do more just to show you what I can ak suma team bi and Babou honestly lu ma gërëm gërëm gërëm ñiti te gërëmuma suma team ñu ma àndal honestly du ma nekk gor euh, more especially recently ñu ma defalal Semester Avenue bi um, that is euh, Babu Jangha ak Nabiya suma number one enemy euh, so yéen tamit we have been doing it and sometimes dañoo ñëw ma ne leen noonu lañ ko defee baaxut noo but still you agree and then you accept yéen it léegi yéen am seen own fans Uncle Laye Mbaye ak jabaram anti Ken anti Ken du ko fàtte du ko fàtte ñu ko thank you thank you thank you thank you anti Ken ak uh, Jikara and also suma team bi duma si fàtte uh, Binta Binta Ndiaye uh, moom she's doing a wonderful job and she don't even want to be seen on camera and i'm saying a merci beaucoup and fatu chor we're saying a big thanks and to the entire gambian talents team for always always always watching and also guiding you your feedbacks need di edit am not your xam ne sax duñu ñëw airport but then you edit videos you know the idas the musas and the sanyangs the lamin the adama you know uh, the the the makasuba the Modu Job, and everybody that's the office with the entire, entire, entire, entire office. What else? Ante what, thank you to suma bopa kuko dafar the IC extension. I just love your hair. My hair is beautiful and I know it. You don't even need to tell me you're beautiful, but I know I am beautiful. Inside, outside, at the back, in front, at the digger, at everywhere. So so makeup bi ñan ñoko def? Madam Faye. Fofu Sifan. Costa Road. ñoo si jaar thank you thank you and Tida Tida Tida DK Baaji moom moo jaar si sanse always always kon jërë ngeen jëf di la Semester Avenue comme nu mu ko waxee 2024 bi du yomba waaw non dam laa du bu yot dañu bay bañ cat nag kon teg leen fa seen loxo ñu ñëwaat indi lu bees tak ànd ak lu bees waaw léegi téye ma ma maa daanu <laughs> ah, look at this sunset. If you don't see it, this is it. It's here. Let's check it. Let's buga. Babu nga ne da nga bëggoon salon bi gaay lan la. ñu jàppase. déedéet nga ne ñu make up la. waaw waaw waaw ñun ñu make up ma because tey da man dama a make up. and Babu guess what benn time laa gis eh, jabari président bi eh, Fatoumata Barrow on the way. this is one of the happiest moment ma tasee moom si yoon bi ma ne ko first lady mi ne ma Fatou Samba ma ne ko waaw danga ma xam mi ne ma yow kan moo la xamut. and you know it's like moom it daf dee seetaan fii la yëpp di dee xewee politicians si eh, ñoo xam ne nekkul politicians ñëpp fii leen leen dee gisee so bye bye. su ma ñëwaatee next ngeen laajte eh? moo ko sponsor. ku ko sponsor. ku bugg a sponsor rek jaay man comme noo ko waxee rek ba maa dem anti kenn ko nuyu bu baax mooy borom monta bu nice bi saa su ne di la jaajëfal Seri Laye Mbaye. musuta <laughs>